ñëpp di ziar ñëpp euh, comme li ma ko waxee sànq la euh, conférence presse yi rek daanaka euh, Mansour ak ak grand bi daam wax nañ lépp bon li ñu li tax li li am solo rek mooy ay points yu ndaw yu ñuy souligner pour bàyyi la ko xel Sénégalais yi c'est très important xam nga ñu xam ko quoi mooy di ne actuellement fi mu toll nii Sénégal dafa toll ci Sénégalais yi parce que sëñ Abdou Lahad day wax mu ne mooy nit bu ñu la tegee bant jugal taxaw ba ñu xam doo bant nga toogaat Macky Sall daf ñu teg bant quoi te jot nañu jug taxaw xamal ko ni du ñu bant quoi léegi c'est très important dafa am lu am solo boo xam ne dama bëgg Sénégalais yi xam ko mooy ñun ñoom dañ ne ñun dañoo bëgg taal dëkk bi te contrairement li am mooy ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi te na ko kilifa diine kilifa aada sunu yaay yi ak sunu sœur yi ak ñëpp xam ni ñun juguñu pour daal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi naka lañ bëggee taal dëkk bi mooy ay 4 heures di jàpp ñu seen kër ay 2 heures ci loo xam teguñu ko fenn Macky Sall nag jaay doole la nekk di def ku fi wax loo waxoon da ngay répété waat même wax yi rek ko li ñuy wax mooy askanu Sénégal la ñuy on fait appel à toute la population sénégalaise ñëpp nag na ko kilifa diine yi dégg na ko ñëpp dégg ñun on se se laissera pas ñu bàyyi Macky Sall jël ñu bëgg ñu piétiner bëgg yor réew yor ko nu mu ko neexee def lu ko neex li mu jàppee ñëpp di indi coow yëpp wax naa ko fi keroog Aliou Dunguru Sow dafa taxaw en tant que tukulóor di làkk en tukulóor ne carrément ne troisième mandat nguur bu ko xasee bu tey da nga langaamu képp ku la ko ndara xañ nga génnee jaas yi dal ci kaw député la dara fekk ko si. dara fekk ko si tey li ñuy toppee euh, Ousmane Sonko nii yëpp ñëpp xam nañ lan la duñ ci nekk ci détail yooyu quoi mais dama bëgg peuple xam peuple sénégalais bi xam ni suba incha allahu yi xamal ko mag ñi ndax dañuy suivre. xamal ko sëriñ si xamal ko sunu yaay dañ ay kilifa lañ ay responsable la dañuy dem préfecture déposer demande benn déclaration pour manifestation place de l' indépendance lañ jëm fa la ñuy defee manifestation samedi samedi la ñuy def manifestation place de l' indépendance suba la ñuy dugal déclaration bi dañ koy dugal parce que dañuy topp procédure yi parce que constitution Sénégal moo ñu autorisé ñun bu ñu amee lu ñu naaxaar ñu manifester léegi nag yoon dafa wax mu ne am réew ay texte moo leen boole maanaam charte nday réew mooy constitution wu Sénégal maanaam mooy norme yi ñuy doxee norme yooyu noonu bu fekkee ni réew ma njiit ya ak réew ma ak population ba seen njiit ya respecté wuñu norme yi leen boole devoir la ci askan wi ñu jug foqati pouvoir bi te Macky Sall duñ ko bàyyee noonu dama wax benn affaire na leer on fait appel à cette population pacifiquement kuy ñëw indi sa gel antiseptique parce que Macky Sall seytaane la te ay seytaane la àndal kuy ñëw indaale sa masque na ko seen yëpp dégg woowuñu fenn fitna mais nag ñoom luñ ci bañ ñun ko ci bañ lu ñu baax ñu ngeer ko dinañ ko teg ci yoon doxal ko ni ñu ko waree yoon luñ ci lu ñu baax ñu ngeer ko donc na ko Sénégal yëpp xam Guy Marius Sagna dafa am jabar ami doom sénégalais yi toog seen kër yéen laay waxal yéen yi may seetaan nii foofu ngeen toog ci ruq yi di wax ku ne di woqante Guy Marius dafa am liggéeyam am jabaram ami doomam am ay doom yu ndaw yu am kattan man dama ko am man kii daa am këram am liggéeyam Dame Mbodj dafa am liggéeyam quoi ñun bu ñu toog ci média yi di wax ni du parce que dafa ñu neex mais ce pays là li fi nekk yëpp ñëpp lay dal fii ngeen gisee ci nguur Macky Sall xam ni braconnier la braconnier léegi nag xam ngeen ni bu baax place de l'indépendance ku fay dugal déclaration xam ngeen li may bëgg a wax donc kon nag na ko mag ñi xam na ko sëriñ si xam na ko ñëpp xam suba 10 heures incha allahu rabbi le peuple dina dem dugal déclaration préfecture pour samedi incha allahu rabbi ñu woo toute la population sénégalaise kuy xeex góor jigéen Macky Sall da koy dooleel kuy xeex daara alxuraan yi Macky da koy dooleel day xeex daara alxuraan yi kuy képp koo xam ne gëm nga ni Sénégal xale yi dañu war a jàng nga ni dañu am war a presse bi liberté am dañu war a wax mënoo ñu privé lépp